jaajëf gars yi Ousmane Sonko mooy waaj a xam gis ngeen ni mu jàppoo ni jàpp ci yëf yi léegi mu xam taxawaay bi ak ndigg li ñëpp xam nañ ne dafa am problème ndigg li xool leen ko ni mu jàppoo mënu sax taxaw xool leen ko mi ngi waaj a daanu gars yi xool leen Ousmane Sonko ni mu sëggee bopp bi gis ngeen ni mu sëggee bopp bi day waaj a xam ni gis ngeen xool leen kanam gi xam nga ni kii fi mu nekk ni nekkatul gis nga benn loxo bi la teg ci yëf yi benn loxo la teg ci podium bi ndeysaan xool leen rek gars yi xool leen dafa sonn ñi ñu ngi naan soleil bi la gis ngeen gis ngeen ñu ngi jóg mel ni kuy noyyi ñaq xool leen ko rek xool leen ko xool xool ñaari loxo yi xool leen ñaari loxo yi malaise fii fii lay daanoo Ousmane ko fii lay daanoo xool leen gars yi fii lay daanoo fii lay daanoo xool leen xool leen xool leen xol leen xool leen xool leen xam na xool leen mu ngi mel ne kuy nelaw xool leen xool leen xool leen Ousmane Sonko gars yi Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko ci la Barthélemy Diaz ñëwee ay dëmb jàpp ko Barthélemy Diaz mooy ñëw jàpp ko gis nga mu ngi bopp bi nekkatul Ousmane Sonko xam Ousmane Sonko xam na waaw lii nag lii nag ñi fi doon wax naan Ousmane Sonko feebarul Ousmane Sonko ndigg li daf dara nekku ci lii moo doon tax nag muy dem di def massage lii benn benn preuve la pour wane ne kën xëy na lii moo tax mënu sax taxaw taxaw bu yàgg waaw affaire Adji bi kon xëy na lii war na mën a expliquer lii nag benn loo xam Ousmane Sonko moo ko def ngir ñaanal xale yi nekk fële Bignona xale yi nekk Bignona te ñu gaañu fa ak senegal xale yi fi dee yëpp Ousmane Sonko moo woo ñëpp ngir ñu ñaanal leen. j'espère que nag dara dalu ko mais lii dafa mel na ku ku kii rek dafa mel na ku feebar est-ce que mystique gu euh, Macky Sall moo ko dal wala lan moo lan moo tax ñun yàgg nañu wax ne Ousmane Sonko dafa war a def attention yàgg nañ ko wax yàgg nañ wax ne man yàgg naa wax ne Ousmane Sonko dafa war a def gis ngeen gis ngeen nu mu sëggee nii wax naa leen gars yi Ousmane Sonko gis ngeen nu mu tegee loxo bi wax naa leen dafa war a def attention. corona bi feebar yi coono yi mystique yi <coughs> li muy lekk daf ko war a xool na def ndànk parce que gars yi duñ ko may jàmm buñ ko mënee éliminer dañ koy éliminer waaw man bugguma taqal kenn mais xam ngeen ne lii lii dafa doy waaw lii dafa doy waar ñoom nag ñu ngi fi wax lu ne ñu ngi ko fi wax dañoo bëgg jàmm ak deuxième vague Barthélémy Diaz nee na deuxième vague du am dugg na fii mais jàmm ji Macky Sall moo ko mën a indi Macky Sall gis nañ ko mu dem Touba n'est-ce pas ci sëriñ ci sëriñ gis nañ ko mu dem Touba mais gis ngeen Ousmane Sonko xool leen fii gars yi xool leen xool leen xool leen nu mu bopp bi bopp bi bi xam na nekkatul nekkatul nekkatul waaw ñu ñaanal xale yi nag moom it nañ ko ñaanal suñu suñu patriote bi lii du dara incha allah Sénégal dinañ la ko jox troisième mandat du fi am affaire bi du affaire Ousmane Sonko du nit affaire bi du nit du Ousmane Sonko. maara diitaal bi fi Ousmane Sonko jógee am na yeneen nit yu fi war a nekk problème bi mooy Macky Sall nu mu yore Sénégal baaxul ñoom Youssou Ndour nu ñu yore nee dañuy jàppale Macky Sall ci affaire xale yi pour liggéey yëf yi du affaire liggéey waaw Ousmane Sonko nag bu demee ba di sacrifier ba ba ba santem wér-gu-yaram moom des ci ñun tamit war nañu suñu wér-gu-yaram des ci xale yi dee Ousmane Sonko gënu leen gis nga ne moom it moom it gis nga voilà.